dafa mel ni gars yi ñaan nañ la lépp parce que da ngaa ji ngay dalal xel waa Pikine ci état de forme ci état de santé ba nga xam ni ñoom bu ñuy ñëw dañuy ànd ak xel mu dal ak fit bu dal ak li nga xam ne mooy yaakaar bi mat sëkk. waaw loolu nga doon wax ci dama am dama ko waxoon dama ko doon koy appui à des man Amadou Bale doomu Falaye Bale ma maa tudd. mais Lamine. bis boobu yombuloo góor xam nga góor lu mu dégg mu yomb si moom bis boobu yombuloo góor yàlla góor yàlla naa. mais Lamine. mais Lamine. Amadou gis waaw équipe bi yëpp dañoo def neel fenn waaw neel bi lu mu doon ak lu mu tekki ki la wax gis naa ba léegi laajal ma ko mais avant pourquoi neel bi. waaw xam dama ne bu dee Ama mais Ama Ama ñu gis nii ñu gis nii Sénégalais ëpp ci Sénégalais yi dañ ne bu yàggee arrangé wul Ama Baldé ndax physiquement mu gën a taxaw ama combat bu gaaw boo ko arrangé ci combat bi lan ngay tontu Sénégalais yi ci loolu ndax nee nañ Ama Baldé mënul bëri combat bu yàgg combat à l'issue loolu naka nga ko préparé ak lan ngay tontu Sénégalais yi. moom booyal ko ànd ma dara wala ko di nelaw rek waaw bu baax duy nam daa ko tubaab bi waaw alors Ama li nga xam ne moom la ñuy wax mooy bés bu mag ñaari champion yi mag war ko daje ñaari gaf yu mag war fa daje ñu bëri am njàqare ci wàllu euh, violence ak lu ni mel ban appel ngay lancé ci côté boobu pour que ñëpp daal muy waa Pikine muy waa Parcelles ak ku mu mënti doon yàgg Modou Lo yéen a digaale bu ñu tëjee barrière yi yéen ñaar. dama la moo bëri. waaw man aussi bon ñu topp sama ginnaaw xam nañ may kan. toujours waa pont xeer puso ñu jub moom li ma yónnee xam nga moom laay def jëf ñoom laa am teg ñoom. tey bu ko sànni xeer. lépp loo am si dara maa bëgg wala def gannaaw baalu ma leen ko. man man man man lañ def man lañ gannaaw bu ma doyoo dañ toog xaar dama leen gis moom yow mu ne ko. mais mbas mën leen xaar ñu bàyyi la nga delluwaat ci entraînement yi parce que yaakaar naa ne fii ak boobu nit dootu la gisaat à part yi ngay nekk. waaw damay sant yàlla di sant sama àndandoo yi.

maa ngi gërëm del waaw del maa ngi koy gërëm bu baax di gërëm di di gërëm euh, Alioune Fall maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax di gërëm Fatma di ko ñaanal yàlla ko suñu borom daal di waaw sama asam maa ngi sant bu baax am na di gërëm waa Kolda di gërëm ñëpp am na moo tax di baax maa ngi bàyyi di ko ñaanal yàlla ko suñu borom daal di gërëm nag Iran bu baax a baax kon nu ma la waxee rek comme noonu maa ngi sant yàlla bu baax a baax. ak sant waa Mbour yëpp di gërëm di bu baax a baax maa ngi gërëm maa ngi sant yàlla bu baax a baax di gërëm papa ba bu baax a baax yàlla ko suñu borom defal ca. ama laaj bu mujj bi bu mujj bi ama ba